كدار سلام ربي وتوبى ليكن ربي فيما asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi njabootuk cheikh sidil muxtaar maam cheikh anta waaye njabootuk cheikh mouhamadou roqaya mbàkke alhaaji maam cheikh anta mu sëriñ moodu roqaya nee na mi ngi dellusiwaat di soññi boppam di soññi taalibe yi di seerelaat ñëpp ak cantam ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye nag di leen yëgal ne liggéey bi nga xamante ne baaxoo nañ di ko liggéeyal Serigne Touba at mu jot ca mooy dajale addiyey Daaru ji nga xam ne seen way jur bu baax wa moo ko tàmbali woon ci atum bi mu wàccee ab liggéey ci 96 Cheikh Salihu Mbacké joxe ci ndigal ne nañ koy fàttali def ko muy bisam di ko ci ñaanal alhaaji maam Cheikh Anta nee na ci ndigalul Serigne Abo Mouhamed xalifatu na bokkal Serigne Modou Rokhaya nee na mi ngi lay soññ ci ñaari taxawaay yooyu te mooy addiyee ak bisub Serigne Modou Rokhaya Mbacke boobu waaye di ko soññ mbooleem a seex se aju ci moom fuñ mën a nekk ginnaaw ba mu soññee boppam ba noppi mi ngi leen di soññ di jox soññe boobu nag alaaji Modou Mamoun Diagne na ko soññ mbooleem fédération daayira yëpp di joxewaat soññ boobu alaaji Serigne Ndiaye Ngoye Xem fu ab seex mën a nekk na ko soññ waaye di soññ nag mbooleem a ci biir réew mi ak bitim réew di leen xamal na alhaaji maam Cheikh Anta Tall nee na jenn yitte rek la am te mooy addiyey daaru salaam ji yóbbu woon nañ daaw 434 millions te fas na yéene moom lam joxe woon daaw dana joxe lu ko ëpp fuuf waaye nag bésub sëriñ Modou Rokhaya bi di ci soññ ci alquran ak xasid ak sindiidi ak lépp loo xam ne waaye mën na ko ci nee na mi ngi lay soññ ñu ànd taxaw ci addiye ji mi nga war a doon la 4 janvier incha allahu rabbi di ame ca Daaru Salaam nañ boolewaat li ne ci poos yi jox ko ndéem bëgg nañ soxla si ñëw ñu faj ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu